salaamaaleykum ñu ngi nuy bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni ñoo taamu rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission euh, sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 euh, heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak euh, Ndeye Comba Moreau tey ji seen mission sociale toute la ville en parle dalal maitre Bocar Arfang Ndao nekk avocat à la cour nekk tamit leader parti politique bi lay ñuy woote ñuy woowee jot na ñu daal di fas yéene waxtaane ak suñu invité Euh, lépp lu soxal actualité euh, politique bi ak tamit actualité judiciaire bi wante tamit euh, actualité bi nga xamante ni actuellement li ko occupé wala lépp rek dafa daal di laal feebar bile di coronavirus Covid 19 parce que gis ngeen Sénégal actuellement ci bu ñu sukkandikoo ci test yi nga xamante ni moom la ñu jot def dépassé nañ baaru mille testés positifs au Sénégal mu nekk situation boo xamante ni jàpp nañ ni dafay dafa gën a catastrophique en tout cas bu ñu sukkandikoo ci jumtukaay yi nga xamante ni réew mi moom la am pour mën a jàmbaarloo ak xeex bi lay kon lépp tey jii daañu ko waxtaanee ak suñu invité di maître euh, Arfang euh, Bokar ndaw ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu it sa auditeurs yi ak mm-hmm. ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan si si live bi Facebook internet bi waaw leen ñaanal kooru jàmm mm-hmm. waaw yow it xanaa eh, koor bee la jàpp <laughs> ah, waaw waaw waaw koor gi moom xam nga ñu bëri de leen di jàppate mm-hmm. buñ ko waxee buñ ko waxul jege micro bi tuuti <laughs> <laughs> voilà Arfan nga am parti tuddee ko jot na faaw ñu laaj la tuuti si sa parti boobu jot na exactement lan la signifier lan mooy ay objectif lan moo ko tax a jóg. waaw en vérité jot na en fait c' est pas le le en tant que mouvement bi vision responsable du Sénégal la la mm-hmm. tudd. Mm-hmm. mais dafa am benn moment ñu estimer que. Euh, vision. responsable du Sénégal du Sénégal. Voilà. VRS VRS exactement. Mm-hmm. waaw léegi nag euh, bon du ñu waxoon ne li ñuy liggéey c' était au autour du du mouvement en tout cas de de l' initiative jot na. jot na boo gisee nu du du jot na xëy na. sigle bi luñ ci jublu mooy ñu xamante ne jot na mais ba ñu xoolee dañ ko benn bennal. Mhm. defoon ko euh, développement par la jeunesse. Mhm. Euh, euh, une option un trésor national. Mhm. donc ñun dañoo yàgg. jàpp ne. Mhm. donc euh, développement boo koy construire euh, am na loo xam ne boo ci taxawee pour sa sa réew mën a yegg foofu option bi ngay jël mooy c'est le développement par la jeunesse. parce que mhm. tamit maanaam ndaw yi daal mënuñ dem euh, sans ñoom. waaw pour réew mi dem kanam faaw ah, ndaw yi bokk ci. non si ndaw yi si ndaw yi ngay tàmbalee en fait. Mhm. projet bi ngay am projection yi ngay mën a def. da ngay obligé nga intégrer si ndaw yi. parce que pour man moom mooy première. Euh, euh, maillon de la chaîne de de développement. Mm-hmm. tey boo xoolee euh, comme même fi fi contexte réew mi toll nii. Mm-hmm. ñi gën a jaaxal ñi gën a ñi njëkk a mooy ndaw yi nga xamante mm-hmm. mënatuñ jàng. Mm-hmm. parce que loolu laa la ma ne la instant bi sax dafa mel ni réew mi ndaw yi la ñu gën a fàtte parce que les jeunes souffrent voilà. moom moo tax ma jàpp ne ni ñuy mm-hmm. demee. ah bu dee noonu la tamit war nañ ko mën a gën a améliorer politique nun koy doxalee Sénégal. parce que tey du ñu fa du ñu faral di dem ñu di di ñu wax am démarche en perspective. nga xamante ne tey li ngay concevoir. yaa ngi koy tàmbalee concevoir pour njëriñ li nga mën ko jot. Mhm. peut-être fii ak vingt cinq ans fii ak trente ans. Mhm. dama jàpp ne wala ñun dañu jàpp ne suñu leader yi lenn bokk na si liñ leen gàllankoor. Mhm. dañuy bëgg li nga xamante ne da jàpp nañ ne mooy suqali réew mi moom ñu doxal ko tey am si ndam tey. inauguré ko tey. te projet de développement en tant que tel bu fekkee ne da nga jël à l'échelle nationale. daanaka maanaam pàcc yi ngay teg. pour mën a accéder au au développement pour mën a accéder à l'autosuffisance néew na nga mën ko concevoir mhm. exécuter ko am résultat yi si biir si ñaari mandat sax mënoo ko am projet de développement bu dëgër mënoo ko euh, à l'échelle nationale maanaam du benn président moo koy mën mënta ne comme tey jii Ablaye Wade da koy sóob Macky Sall yeggale ko wala beneen président yeggale ko loolu dafay nekk loo xam ne c'est à mais loolu moo mën a nekk boo mm. boo demee si yeneen réew yi tamit loolu nga fay gis généralement ñi nga xamante ni dañuy bokk vision nga xam ne dañuy dajaloo si benn si benn si si benn parti. Mhm. nga xam ne dañ leen di wax soit les gens de gauche. Mhm. wala les gens de droite day nekk benn famille bokk benn idéologie politique. Mhm. wala mu nekk les démocrates contre les républicains. wala nga dem Angleterre nga am les travailleurs contre euh, ak les conservateur même boo demoon tey dëkk bu mel ni Israël da ngay gis ne généralement ñaari grande famille moo fay am. léegi nag ñaari grande famille yooyu même bu nit yi bokkul c'est-à-dire boo demoon États-Unis président bi jëkk doxal ak ki koy doxal éventuellement ñoom ñooy bokk. Mm-hmm. bu fekkee ne démocrate la tamit tey da gis ne Barack Obama ak Bill Clinton ñoom ñëpp dina jamono boo xamante dafa am lenn lu ñuy bokk. parce que bi fi ñuy rootee ñoom ñëpp mm-hmm. lenn lay doon l'idéologie politique de base moom mooy permettre ñuy mën a projeté wu. Mm-hmm. nga xamante tey boo demoon France dañ wax ne ah. il faut que les gens de gauche restent au pouvoir wala il faut que la droite euh, reste au pouvoir nga xamante ne ñaari famille politique yooyu ñooy tàmm di xeex. Mm. ba tey xëy na euh, président bi ñu président bu bees Macron moom moo ñëw d' accord aligné wu si ñi. Mm. wala añi aligné wu si si mais mm. généralement on peut considérer que c' est philosophiquement wala boog si gouvernement bi ñu ko ràññee c' était des gens de gauche ñun nag fii loolu amuñu ko. fii moom wax dëgg yàlla problème bi mooy diw moo falu nañ ñëpp mab dem si moom. dem diw bu fi jugee ñëpp jé ku nekk jéem a daw nga xamante ne. li noo def ah mais yow est-ce sax yow bokkoo ci ñooñu parce que question boobu laa la bëggoon posé ñu bari dañuy euh, def parti politique. uniquement pour rek xam nga yëngu-yëngal kaas fii ñu oo leen xëcc leen jox leen poste ci gouvernement ainsi de suite est-ce que du kaawu Arfan Ndao non xam nga dafa parti yi dañoo bëri tamit Arfan waa parti dañoo bëri mais euh, bu dee parti politique mën nañ bëri te wut te te wute te parce que hmm. damay yow yow luy sa particularité damay faral di wax damay faral di wax lenn hmm. structure boo gis xam nga tey mu mel ni wàll journalisme wala mu mel ni peut-être poste ministre wala mu mel ni leneen hmm. am na luñ ci njort c'est-à-dire structure bi mi ngi fi mais ki koy ki koy exercer ki koy exercer moom moo koy jox contenu maanaam maanaa bi muy am moom moo moo moom ki koy exercer moo ko moo mm-hmm. moo ko koy jox tey mm-hmm. même fekkoon danga jël footballeur mm-hmm. maanaam ñëpp am nañ xalaat ci footballeur waaye football mën naa soof nit ngir ngir ki koy def donc incarné wu incarné posture leader politique wala posture président de la république dëgg la am na fu ñu ko tënk am na lu ci yaakaar mais ki koy ki ko doon jamono bu ñu koy natt maam kooku moo moo moo koy jëmmal mm. bu ñuy gërëm tamit dëgg la nañ ne gërëb gërëm nañ président de la république mais jëmmi ki koy incarné ndax jamono bi ngay gërëm sa président am na kuy xalab président am kon kon amul lépp lenn loo xamante ne dafa nekk fenn tënku rek sax fa te mënatut a soppeeku. dañuy dañuy seet mais yow tontu woo ko de est-ce que yow bokk nga si ñiy samp parti politique uniquement. parce que xam nga ni bon Arfan amul doole pour nekk président amul doole pour nekk maire ainsi de suite pour nekk député mais damay samp sama benn parti rek avocat laa xam nga yuuxu gauche yuuxu droite ñu ooma jox ma benn poste comme ñeneen ñi ñu koy defee parce que parti politique yi dañoo bari question boobu laa laaj mais tontu woo ma. mais parti politique dañoo bari dëgg la mais ñi créé seen parti politique yëpp bokk ci jubluwaay. Hmm, yow luy sa yow maanaam lan nga def lu ah, ñu ne Arfan mi vrai vraiment parti bi bokkul ak yeneen parti yi nga xam ñoo fi nekk. waaw mais loolu. waaw li si njëkk mooy ndax Arfan ak ñeneen ñi. Maître Ndaw ak ñeneen ñi dañoo bokk yem benn. Mm. bu nu bokkul yem ñu bokk nañuy defee politique. Mm. bokkuñu gis-gis. Mm. bokkuñu fu ñu rootee bokkuñu jubluwaay. yow nooy defee politique politique benn. Mm-hmm. yow yow nooy defee politique yow noo fas yéenee defee politique. ni ma ko fas yéenee defee benn mooy. ñi nga xamante ne ñoom mm-hmm. laay àndal. Mm-hmm. pour def politique wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ci ci réew mi benn nañu xam enjeu yi nga xamante ne moom ngeen di bokk di ko xeex. parce que amul benn nit boo xamante ne mën nga ñëw fekk askan bu toog nga ne ñoom di leen àq ak seen yelleef yëpp man maa leen koy xeexal te ñoom bokkuñu si loolu amul. économiquement amul ma ma socialement tamit loolu mënta ne. Mm-hmm. xam nga euh, euh, dañ ma wax ne bokk na si ni ñuy euh, mandargale suñu bopp xam li xew jëf war. kon li jiitu ci politique ci niñ jàpp ñun mooy na nit ci xam ni xew xam fi àdduna toll ba pare parce que nekkuñu Sénégal nekkul benn benn euh, kër wala benn kuréel boo xamante ne ñoom dañoo dañoo dañuy dund en autarcie maanaam dañoo nekk ñoom kenn. Hmm. maanaam di am seen mone bopp am seen taarix bopp am seen lépp bopp demeewut noonu. dañoo nekk ci benn àdduna boo xamante ne ku laal ku lu laal lii lu si ëpp. Hmm. buñ ko xamee buñ ko xamul day mujj laal lee. Hmm. mondialisation mondialisation te te mondialisation boobu nun ko mm. jàppee du benn processus boo xamante ni nit yi ñoom ñooy ta ñoo koy tabax processus la boo xamante ne économie parfois moo koy laaj ouverture parfois moo koy laaj mais tey dañuy gis ne am na fu nit ci di toll dañuy defa amaat benn lu ñuy wax repli sur soi tey nit yi fu ñu toll nii boo demee Europe lan moo fa xew mm-hmm. repli sur soi moo fa xew Angleterre lu mu def dafa génn Union européenne tey problème yi am problème yi am yëpp mm-hmm. dëgg la Union européenne ñi ngi siy wax mais pays bu nekk yaa ngi jéem a fexe noo sàmmee sa waa réew dem bëgg dikk bi nga tere leen ko kon ñi processus communautaire bi nga xamante ne tey lan moo kii ni mooy ba ñu paree deuxième guerre mondiale dañu ne woon réew mu nekk mënul dem di def lu ko neex parce que dem di def lu ko neex moom moo indi li li guerre bi moom moo indi taxawaay Hitler mm-hmm. ba nga xamante ne tey ñu ne nañuy bokkandoo di xalaatandoo maanaam di sàmmandoo lu ñuy wax sécurité bi. fala la OTAN génnee après ñu dem ba commencé dugg si communauté économique européenne après ñu dem ba dugg si union européenne fekk na union monétaire nañu jëkk def dem nekk Europe des douze tey ñu dem ba nekk Europe des vingt sept wala wa wala wala vingt wala vingt wala lu ko comme Angleterre génn na. Mm-hmm. mais ñun tey fan nañu toll ñoom fi tubaab yi génn. Mm-hmm. fi àdduna nga xam ne dem nañ ba xamante ne loolu mënut a wéy wala dafa xaw a jafe ba Angleterre génn ñun foofu nañuy dugg. nu ñu fay duggee mooy lan mooy UEMOA. Mhm. nu fay duggee lan mooy mooy lan mooy CEDEAO tey carte d'identité CEDEAO yi ñëw na. carte d'identité UEMOA ñëw na mais Sénégal yi ngay jiite. ñu nekk ci wàllu agriculture ñu nekk ci wàllu mbéy mi ñu nekk ci wàllu napp bi bu ñu bu bu ñu xamul loolu xam fi nga jëm. Mhm. mais nan la ñu mën a jàppale ci sa politique. cest à xeex bu ñu war a jëkk xeex mooy def une mise à niveau ci connaissance bi askan bi am ci fi àdduna toll ak ni àdduna doxe ak ñi ñu ko bokkal ñan la. Mhm. lo dafay farata. ñun nag temps boobu maanaam mise à niveau boobu xamal nit ci li xew ba pare doog leen woo si ñuy jëf li war temps boobu ñun dañ koy jël te temps boobu mooy xëy na temps jàngale jël si ni temps. kon yaa ngi jël sa temps instant bi yaa ah, ngi préparé ñu def ni yàgg nañ koo def. parce que tamit mi ngi préparé wu pour nekk député nekk maire nekk président. xam nga nekk député nekk maire nekk président. c'est pas foog nga tontu ma. xam nga yor parti lu ma la laaj doo ma tontu. waaw boo ma bëggee dugal fi ñeneen ñi dugg kon danga may yemale ak ñeneen ñi. te bokk nu. mais yow am nga ambition présidentielle comme ça. sama maanaam damaa damaa wax ne. waaw damaa wax ne képp képp ko am ndey ak baay am waajur. waaw yow mé say waajur. Hmm. bu dul yow sa jëmmi bopp say waajur mérito na ni ni ni ni humanité ni àdduna fàttali ko turu ñenn ñi. yow ad humanité fàttali ko sa tur noonu. si mhm. jëf lu baax. kon doomu aadama bu juddu jaar fi nga war a jaar jàng jàng li nga war a jàng di góor-góor liggéey si kéemtalaay kàttan amul lu nit di liggéey si àdduna muy président muy premier ministre ba nga war ko jommale sa bopp kon kon pour man si évident que man sama jëmmi bopp. Mhm. ak ñi may àndal di politique. bu fekkee ne euh, noonu nañ koy jàppee wala ñi may àndal ci mouvement bi. Mhm. amul kenn ku ma ci jommale nga mën a nekk président. Mhm. ndax dama wax lan kon kon Arfan euh, am na ambition présidentielle. mais ambition présidentielle ñëpp ko war a am mais jaaral si digg bi ambition présidentielle ñëpp ko war a am ndaw maître Arfan Ndaw am na ambition présidentielle. 2024 damay samp sama ndënd jàmmaarloo même si c'est le président Macky Sall ma taxaw samp sama ndënd. kon moom ni mu amee woon fit ñëw samp ndënd ndëndam ba ñu fal ko. ñun ñun moom. waaw dañoo baaxul doon ay. mais ni ngay waxee nii day mel bëgg a dem euh, rallier affaire yooyu. déet xam nga njëriñ ak ñàkk njëriñ nekkul si rel ya APR xam nga nit ci dafa am nu ñu déggee politique ne mm, mm. politique non foog nga ñëw fa boo da ngay def dara pour am dara politique doo ko defee sax euh, ay sa xaalisu bopp foog nga am fay wéeru mm. foog nangam foog am poste nekk ministre maanaam dama dama gisul lu ci nekk lu gën a valorisant tey nga toog fii man ma toog xëy na toog ma fi en tant qu'avocat mais mu amul gisuma lu si gën a valorisant man ma xëy leen di dem tribunal di daan foofu sama doole mhm. gënul valorisant ni nga toog nii di ma laaj ngir askan bi jëriñu donc amuñu nit yi dañoo war a génnee yenn mbir yi ñuy def seen bopp am ay fixation si kii ministre la kii député la wala nangam sangam xaalis pour sa ay activité politique sa sa sa poche ngay jëlee li ma wala dafa am li néew li nga am te nga xamante ne hmm. yéene naa ko ngir mu jublu si yeete bi ñuy yeete ci laa koy ci laa koy def maanaam si si li néew li ma am ndax mhm. tamit mhm. am na leen loo xamante ne mhm. euh, mënagun ko waaye jéemuñu ko waaye li ñu bëgg mooy képp ki nga xamante ne toog nañ donte une minute la wala cinq waxtaan ci wàllu politique maanaam waxtaan bi ñu siy waxtaan nga jëlee si loo xamante ne yow sa bopp di nga xamante ne jommuloo doon kiy jiite réew mi ëllëg ba pare soo soppi ni ngay doxalin ba mën a soppi ñeneen léegi nag dama ne au royaume des aveugles les borgnes sont rois donc le premier combat bi ñu war a xeex mooy sortir du royaume des aveugles waruñu tànn nit njiitu réew tànn ñàkk pexe da nga war a gis ay kàngam ay nit yu ñu doyloo ñu ne ñii. ñooy kon dañoo tànn Macky Sall ñàkk pexe. waxuma euh, xam nga le débat. Macky Sall dañ ko tànn tànnu ñàkk pexe 2012 loolu nga bëgg a wax. déedéet bu fekkee ne tey tamit dañoo bëgg delluwaat si côté boobu <laughs> nga xamante ni lépp rek luy am si phénomène. Mhm. foog mu am turam sant. Mhm. àdduna doxewut noonu ñun mhm. gëmuñu loolu. mais waratuñ dem daal philosophie yaa fi sa taxafalu. waa exa fondamentalement surtout avant yaa fi sa taxafalu. maanaam waruñu tey boo xoolee structuration politique Sénégal. du ma nekk euh, parti yëpp de mais ñi nga xamante ni ñoo fi fës. si wàllu politique am fi ay parti yi ñu ko mën a wooyee ba ñuy créer seen parti dañoo mer génn créer parti loolu moom musuta doxal mbir mm-hmm. musuta doxal mbir boo xoolee maanaam diggante président euh, euh, euh, Ablaye wadd ak xëy na Idrissa Seck mm-hmm. jotee la ki génn créer parti mm-hmm. boo xoolee tey avant lu jiitu loolu ba AFP bañ koy sanc diggante Moustapha Niass mer génn la parce que xëy Moustapha Niass ak ak président Abdou Diouf. Mm-hmm. tey boo xoolee président bi fi nekk maanaam président Macky Sall. Mm-hmm. ñu bëgg ko ñu bañ ko mer génn la créer parti donc ñiy jongante tey ñi nga xam ne ñoo si gën a gën a fës ñëpp lu nu fës ba élection présidentielle yi boo boo boo boo boo xoolee à part président Sonko. Mm-hmm. yeneen candidat yëpp ñu si yëpp ah boo jëlee Idrissa Seck ak Maître Madické Niang génn la créer parti ñeneen keneen ki fi nekkoon président Issa Sall la ak Sonko nga xamante ne moom wax dëgg yàlla du ñu jàpp ne maire génn créé parti moo ko dugal ci politique mm. xëy na am na benn philosophie boo xamante ne tey ba mu demee aussi à un certain moment donné de l'histoire y a une rupture avec l'État mm -hmm. mais xëy na am na philosophie boppam boo xamante ne moom lay doxal moom la gëm gëm-gëm yooyu nag laay wax ne tey plus ñuy dem plus la jeunesse est interpellée parce que dama mm. ne la la jeunesse mm -hmm. parce que président Macky Sall wala président yi nekk si àdduna bi yëpp ñu si yëpp buñ buñ ko doon natt dinañ ñu magee ku ci nekk fukki at mbaa mhm. gën kaa neew juróomi at même bu dee président Macron dina am leen loo xamante ne magee nañu ko mhm. kon jafe-jafe amagul fii ak ñi nga xamante ne si ñuy mag ñoom ñoo fi nekk di jiite mais bu ñu fàtte ne dinañ dem ba benn jamono boo xamante ne kuy première dame yow ak première dame yéen a war a bokk mhm. at da ngeen koy bokk force man ak kii jiite dañuy bokk man ak premier ministre dañuy bokk at dama ne su boobaa bu fekkee ne moom mooy nekk président na fekk ne na ma na na na na na ma gën a bëgg réew mi. Mhm. na fekk ne na ma gën a nangu liggéey na fekk ne tamit na ma xaw a ëpp xam-xam si yenn yi. bu dul loolu rek échec la benn échec collectif lay doon loolu laay wax ne tey corps de métier bu nekk mën nga génnee nit ku xarañ koo xamante ne bu ñu demee ba tànn des ñu seet ki fi gën. parce que tant ñu ne ki fi tane. Mm. maanaam yu baaxul yi la. mais ki fi gën ki tane ki fi tane. Mm. yi baaxul yi la. ah lii ah kon tane ne mooy la fa nekk baaxul bi fi gën mooy yu baax yi. waaw ñu am yaakaar di nga bokk ci ñi fi gën ah, maître ah, Arfan Ndao euh, actuellement ah, gis nga àdduna bi dañu nekk ci euh, crise sanitaire bu métti métti boo xamante ni pratiquement réewu adduna bi yëpp la laal actuellement mi ngi fii au Sénégal depuis deux mois Covid 19 bi mi ngi fii bu ñu sukkandikoo ci test yi ñuy réaliser Sénégal dépassé na baaru 1000 cas yi yéen au niveau de la justice ban est-ce que yëg ngeen situation bi comme ñeneen ñi ni ko yëgee ni mu affecté seen leen waaw wala déet naka ngeen koy dundee foofu ca tribunal. non laal na seeni i ah, audience yàq na seen i euh, maanaam ama ni ngeen doon amee ay clients amatoo leen ko amatoo leen xaalis ainsi de suite naka ngeen koy dundee. waaw waaw nu nu lu metti la euh, si wàllu liggéey bi parce que li tax may wax lu metti la mooy tamit mm-hmm. dëgg la euh, ñu ngi liggéey pour pour am lu ñu suturloo mm-hmm. mais am na tamit quand même benn philosophie bi nga xamante ne mooy motiver ci liggéey. Mm-hmm. mooy combat bi ñuy wax pour la justice. te tey wax dëgg yàlla bu fekkee ne appareil bi nga xamante ne mooy mooy mooy débouché dans dans dans l'exercice de la justice wala résultat bi fi ñu koy xaaree. Mm-hmm. ci justice tey appareil boobu moo grippé. xam nga loolu jafe-jafe am loolu mooy lan moom mooy tey audience yi da ngay gis nit ku ku ñu defeere mënuñu koo àtte da ngay gis nit ku def appel ñu war koo àtte mm-hmm. mënuñu koo da ngay gis nit koo xam ne si wàllu liggéeyam si wàllu commercial si wàllu leneen. Mhm. nit tooñ ko mu war a mën a récupérer xaalisam mënu koo récupérer da ngay gis éventuellement nit koo xamante ne mi ngi luwee nit war koo fay. Mhm. munu see jot waaye ñu ne tamit mënu koo génnee mënut a def dara. donc ñun tey tout est lépp a bloqué. Mhm. te blocage boobu dëgg la am na benn côté boo xamante ne nit ki bu def bu amul audience mënu laa fay. mais am na beneen côté boo xamante ni tamit ñi ngi lay dundee justice nit ñu jàpp nga bëgg koo libérer wala ñu tooñ nit nga bëgg a dem ci justice mu saafara loolu yëpp mënatoo ko def kon dañu bloqué c'est le système appareil bi si boppam moom moo bloqué te appareil boobu mooy suñuy moyens yi yi ñu am donc le fait de ne pas pouvoir faire accéder à la justice ñi ko soxla mooy les justiciables parce que ñun mënuñ si accéder parce que ki koy exercer mënu ko exercer exercer sauf circonstance exceptionnelle mhm. loolu déjà lu metti la mhm. beneen coté bi nag kon temps yi amuñ xaalis parce que amatuñ client non <laughs> xam nga. Euh, non Arfan <laughs> foog nga tontu parce que xam nga bu affaire yi di dox gars yi ñu leen di jiiñ fii viol ñii fii rey nit ainsi de suite kii ñëw ñu naan xaaral ma daw seeti Arfan jox ko xaalis voilà mu plaidé ainsi de bu fekkee lépp a Arfan dans les normes dootoo gis client avocat yi ñu ngi gis ay client wala gisatuñ ay client waaw bu fekkee euh, parce que ñëpp bokkuñu tamit ni ñuy liggéey. mais bu fekkee ñu doon ñëw tribunal di fa mos ab tuuti moom. xam naa li ñuy mos wàññeeku na. <laughs> maanaam. <laughs> ah mais mm. xam nga tamit tey boo amoon trois cas flagrant wala wala wala ni nga mënoon am trois dossiers wala quatre dossiers bees. par mm. semaine éventuellement. Mm. mais nii nii mënatoo ko am. parce que bu tout est bloqué. la bu audience amul mënoo. Euh, sa client jàll. léegi amoo client avocat yi kon instant bi. Euh, ah li daal ñëpp yi ñoo leen dal ak ñoom seen. li ñuy wax ne virus bi amul xaaj ak seen. waaw les effets tamit amul xaaj ak seen de mais man dégguma ci discours président Sall comme ça euh, mi ngi wax dinañ jàppale nii même bu fekkee sax jàppale boobu entre guillemets dinañ si ñëw si kanam mais dégguma mu wax ni peut dinañ jàppale justice bi wala avocat ainsi de suite parce que comme ni ma ko xalaatee nii ni mu laalee commerçant yi noonu la war a laalee avocats yeeg ñoom seen parce que euh, da ngeen def benn profession bu libérale client yi di ñëw di leen fay xaalis ngeen leen di plaider donc bu fekkee loolu lépp dafa dem ba bloqué anoma kon avocats yi tamit ñoom soxla nañ ci ndimbal li ñuy wax wala soxla ngeen ko wala soxlawu leen ko. dañ may dugal moom métti. nga foog nga tontu ma. mais mais bu ñu waxantee dëgg. avocats yi moom li ma jàpp. Mhm. bokkuñu ci. couche vulnérable bi nga xamante ne en en urgence. Mm-hmm. en premier temps. Mm-hmm. ñoom bu ñu naan dimbal ñoom ñoom nañuy xalaat. dimbali parce que parce que mm-hmm. tamit avocats bu ñu fàtte ne ak ah, ñoom contribuer nañ ci fonds bi nga xamante ne moom la ñuy dimbali nit yi. ci fond bi nga xamante ne ñu koy joxe Covid 19 bi. ñoom joxe nañ ci cinquante million yow yow participer nga yow Arfan. man personnellement. waaw. man ordre des avocats li ñu joxe maa ngi si biir mais est-ce que ah, ah, ah, mais xanaa mais naka la cotisation bi demee non ku nekk da ngay joxe après ñu ñëw jox président wala naka la demee. déet mais avocat yi am nañ ay. mais loo joxe. <laughs> xam nga dawaa dégg dawaa loo joxe parce que. arfan na si euh, avocat yi ëpp xaalis ci baro bi <laughs> waaw. <laughs> non demee demeewut mm. noonu. Mm. demeewut noonu mais mm. mais am na ñi ñuy dimbali dimbal bi ñuy dimbali ñun. bu fekkee ñi ñuy dimbali waate tamit. bokkul si li nga xamante ne moom la ordre des avocats yëkkati joxe ko ne loolu effort national la mhm. ñun li ñuy ne ñoo ñu mhm. que jege ñu ñun en tant que en euh, tant en tant que euh, mhm. dëkkandoo en tant que mbokk côté social quoi waaw nekkul ne dañu jege en tant que avocat wala eh, eh, eh, avocat boo ko waxee da dugg si biir ordre parce que ordre moom moo yore baatu avocat yi jëf bi muy jëf tamit moom moom day engagé avocat yëpp donc tey bâtonnier bu demee jébbal loolu si avocat avocat yi la ko jébalee maintenant nag nu fond boobu demee xëy na mhm. détails yooyu man munoo munoo ñu ci leeral dara dama mun naa ci bañ a xam dara sax xam naa mhm. ne daal def nañ ko au nom de l'ordre des des des avocats te ndamu avocat yëpp la kon euh, yéen couche vulnérable bi président Sall di wax avocat yi bokkuñ si nekk dama ne nekk te amatoo leen client xam nga paas client yi bu ngeen doon am euh, dix instant bi cinq ngeen di am wala trois xam nga lu ñuy wax mbas moom moom ku ñëpp couche mm. vulnérable mm. nañ ci mm. waaye dafa am buñ doon def liste tamit dafa am ay super priorité am hmm. ay priorité am ñoo xam ne dañu priorité hmm. même boo xoolee bu bu dara amoon si wàllu droit. Hmm. moo dégg naa dégg naa Barthélémy Dias mu ne instant bi jamono bi amul ay ñii la laal ak ñii ñëpp la laal. affaire bi ci kaw la commencé ba ci suuf. waaw dama ne ñëpp président Sall sax war na ko ñëpp la laal. mais bokkul nu mu leen laale ak tamit. coono bi mu leen di indil urgence yi yi posé wu maanaam du bokk c'est-à-dire lépp loo gis rek am na stratification maanaam tey nii. Mhm. bu ñuy wax ne les couches vulnérables. Mhm. boo ko déggee baat boobu rek li ngay dégg mooy mooy mooy ndaw ñi ak femme et lool na ñuy tàmm di ko wax kon góor maam si mhm. li nga xamante ne ay coono la. ak ni ñu ko war a sàmmee dañu njëkk wax mooy nañu sàmm ndaw ñi. sàmm sàmm jigéen ñi après nag góor yi doo ko ñëw. donte léegi jigéen ñoom ñi ngi xëcc pour dugg ci groupe góor ni kon couche vulnérable bu ñu demee ba ci kanam xëy na xale yi lay doon boo demee tamit si mhm. beneen domaine contexte boo gis rek am na leen benn mhm. réalité bi fay dox yéen mënoo leen nekk man man de su ma ah. doon dogal du ma jàpp ne avocat dañuy nekk une super priorité mhm. donte nag ku si nekk am na ñu nekk si ginnaaw ñoo xam ne yow boo dul priorité sax ñi nekk si ginnaaw dañuy nekk priorité mais comme international nañ wax nañu jéem a xool ñi nga xamante ne tey bu dara dara sax maanaam pour ñu mëtale day jafe. Mhm. bu dara dul dara parce que c'est pas. Euh, du contexte bi rek ngay xool da ngay xool li nekkoon avant. contexte bi avant contexte bi affaire bi ñëw kon waaw li ñuy wax ne tey bu ñu nee nit may na ma kooku lu darajam gën a kawee rek ñu jàpp ne lim la may bëri na. léegi bu ñu nee tak coono dal naay nit kooku tamit xëy na li mën-mënam gën a suufee rek ñu jàpp ne mooy gën a dund problème boobu. kon dañuy lépp loo gis. surtout si wàll wàll politique ak yu demee nii dafay am ay super priorité am ay priorité am loo xam ne c'est pas prioritaire tey boo xoolee li ni ciy dund yëpp lu essentiel la maanaam amul lenn loo xamante ne échange futilité waaw kon ni muy amee noonu tamit nga xamante ni si biir si si biir dunduñ wi am na lu prioritaire lu super prioritaire ak lu prioritaire donc kon si dimbal nit ñi ñi nga xamante ne ñoom si ñoo ñoo bokk dund boobu am na ñu prioritaire ñu super prioritaire ak ñoo xamante ne prioritaire nu voilà donte nag ñëpp duñ si yem mm. maanaam avocat yëpp duñ yem atte maanaam gox goxaan yëpp duñ yem atte waaye ñu xam ne rek loo gis rek am na ñu ko gën a yeyoo am ñu ñu mu yell si ñoom am na ñoo xamante ne xëy na du defal leen ko du taxawa taxaw taxawaay farata mm. léegi Arfan am na ñuy wax ni si covid 19 bi ak law beeg rassemblement yi ak suñu prison yi ni mu tëddee fii Sénégal ñëpp xam nañ ko euh, mu nekk prison yoo xam gis nga tout le temps les droits de l'homme dañ koy dénoncer am na ñu naan nañu libérer prison yi ci jamonoy mbas bi yow loolu loo siy wax est-ce que loolu idée bu baax la xam nga dafa dafa am loo xamante ne mm-hmm. si wàllu démarche lay mm-hmm. doon mm-hmm. lu ma la wax sànq ne loo gis rek am na logique bi koy doxal jàpp nit ak bàyyi nit mus ñu ko teg si logique gu mbas kon logique gu mbas mënul ñëw nekk critère jàpp wala bàyyi xam nga tamit dëkk bi il faut ñu ñu am une certaine rigueur. Mhm. dans la démarche te loolu moom soo na fi bu baax a baax. bu ñu am gis nga daal yooyu wax yooyu taxawul. de am na la loo xam am na ñu ñëw am nañu non am na ñu ñëw wax ne nañ def xaw ma sax amnistie mbas lu mu bokk ak amnistie mais ça n'a rien à voir dañu war a bàyyi dàq ginaar waxaale si soxla tey. mais on a vu le cas de Hissène Habré de l'ancien président tchadien euh, gis nga moom libéré nañ ko. prétexte non libéré ko non non dañoo génn nañ ko ci kaso bi. waa génne këram di ko garder prétexte bi mbas mi la waaw mais mais mais loolu xel mën na koo nangu c'est-à-dire ce n'est pas le critère exclusif mhm. mais c'est un critère déterminant pour de faveur tamit euh, rapport ak lan non traitement de boobu moom bu fekkee ne am na ko amoon mhm. na ko balaa ñu koy jàpp parce que boo nee ici après lu mu munti doon tamit waxoo waxoo waxoo sa waxoo Samba Ndiaye waxoo Ndiogou Faye loolu dañ koy d'accord ne balaa ñu fa doon dugg mhm. nañu bokkul woon statut kon ci biir traitement ah amul kenn koo ah, xam non non non non non non kenn koo xam ne bañ lay àtte dañoo créer des juridictions des chambres africaines extraordinaires bu fi amee nga wax ma ko mais ki jar ay réew mbooloo créer une juridiction pour àtte la mais kook nan nga mën a wax ne yow ñeneen yéen a bokk moom laay wax la rigueur dans la démarche tant que génn ñu si si si si si si manque de rigueur boobu dañuy xaw a saafonteeg lu ñuy wax naa naafeq parce que amul kenn ku ñu dajale ay ay. kon mënul mënul bokk. mënuñu bokk ñu euh, bokk jàpp benn ancien président ak jàpp benn. sénégalais lambda mënu nekk benn ancien ministre député ainsi bokk tamit. ci biir même ci de la justice même au niveau de la demal Côte d'Ivoire tey. par exemple rek laa lay jox ñaata nit nañ leen jàpp àttee leen foofu tey am na ñoo xam ne bañ leen jàppee dañ leen yóbbu Europe pour àttee leen foofu mais bokk ñu woon avant ñu leen di jàpp. bañ leen jàppee bokkuñu bu buñ ci noppee du nu bokk. Mhm. amul kenn koo xamante ni fii c'est boo ñëwee si cadre Sénégal ban la bëggee àtte nga nekk citoyen lambda dañoo créer cour de répression de l'enrichissement illicite. Mhm. kon kañ fa doon àtte bokk leen woon balaa ñu leen di jàpp bañ leen jàppee bokk te bu ngeen ci noppee du ngeen bokk foog ñu xamante ne tam benn nga jàpp na yàlla daa bind te yemalewu ñaar tamit wa wa ilaa. nga jàpp ni lu mun di xew nit yi bu ngeen bokkul situation mun leen bokk atte kon affaire Hissène Habré yow ànd nga si non ànd naa si à partir du moment. logique bi niñ ko defee. non autorité légitime bi moom moo ko jël. Mhm. critère d'appréciation yi muy soumettre pour pour taxaw si kaaw Hissène Habré ak conséquence yu siy am su fekkoon ne tey dañoo sàggan ba ki nga xamante ne africain yi. Mhm. ñoo ko dénk Sénégal pour mu àtte ko bu ñu sàgganee ba kooku jàngoro dal ko lu ñuy rendre compte. mais africain yi nañuy rendre compte monde bi nañuy rendre kon kon su fekkee ñoom dans leur libre appréciation jàpp nañ ne kiikat kat ko yóbbu këram. Mm-hmm. xam ne jël nañ matuwaay yëpp libéré wuñ ko waaye jël nañ matuwaay yëpp ngir jàngoro bi bañ koo dal ñoo xam ne jël nañ ko ndax dénkaane la bokkul ak sa alali bopp dénkaane nag da nga siy def ci kéemtalaay kàttan. Mm-hmm. encore une fois gannaaw moom nañ dénk pour mu àtte ko dinañ ci d'accord ba ñu gis ne. maam lu mu def safaanoo ak yoon ak àq ak yelleef yi mais quant wax ni léegi konaaw déplacé nañ kii nañ déplacé ñëpp na fekk ne kii yem ak ñëpp bu kii yewuleeg ñëpp les dispositions ñuy jël munta bokk il faut pas aussi hmm. ñuy laaj nit yi li nga xamante ne du ñun suñuy àq waa ñoom du seen warteef loolu yow léegi d'accord nga ci ni ñu euh, kii Hissène Habré pour si. un laps de temps mais d'accord si ñuy wax nañu libérer prison yi ndax mbas mi. c'est non nañu libéré prison bi ndax mbas bu fekkee ne bu fekkee ne non tey gis nañ fi barki démb barki démb euh, du barki démb démb la braquage en plein jour mhm. braquage en plein jour maanaam ci mbas bi nga xam ne nit ku si nekk yaa ngi wut loo sàmmee sa bopp nga boole mbas boole weeru koor nit mën a am xalaatu maanaam génn di def braquage bëccëg mhm. loolu doy waar la mais kooku su fekk kooku tey ci contexte que ñu jàpp nit ñu jàpp nit ñu ne ñu génnee ko moom ñu jàpp ko ñu ne jarul ñu ko fay yóbbu moo yema ah. ki ñu jàpp. Mm. génnee ko ak ki nga xamante ne dañ koo war a jàpp. Mm. bañ koo yóbbu prison ñoo yem at. ñoo yem at donc bu ñu jàpp rek ne comme mbas am ne rek ñu jël gars yi sànni leen ci witi. léegi c'est nag mm-hmm. bu fekkee ni ñuy mënee bu fekkee ne jot gi mee ne ko ak tal gi parce que kenn xamul bouleversement yi dans les services. Mm-hmm. ñu ku nekk ñu xool sa cas seen ndax war nañ la mën a génnee loolu man d'accord naa ñu def ko o cas par cas mhm. mais bu mu nekk benn mesure d'ordre général bi nga xam ne day dégénérer waat ci beneen insécurité mhm. parce que crise bi dafa nekk une crise multidimensionnelle voilà euh, Arfan maître euh, Ndao euh, gis nga actuellement Sénégal ñu ngi ci couvre fa malgré mesures yi ñu jël parce que bi ñuy jël couvre-feu bi léegi mu mat ci 4 mais bi sax la war a jeex xaw ma dañ koy renouveler ainsi de suite yow naka nga gisee loo couvre-feu vingt heures ba six heures du matin mais gis nañ ni terewul Euh, depuis ñu jël couvre-feu bi cas euh, yi mi ngi wëy di law am na ñu naan sax couvre-feu bi amul sens am na ñuy wax ay confinement ainsi de suite euh, yow lan ngay suggérer pour faire face pour yow lan mooy solution parce que bu ñu waxee ay affaire confinement tamit foog ñu dem xool lu am France wala ñu xool lu am Italie par exemple parce que ñooñu def nañ confinement euh, presque lu presque deux mois mais gis nañ ni euh, ñu ngi confiner nit ñi mais nit yi terewul ñu ngi wéy di dee est-ce que yow jàpp nga ni confinement solution la parce que actuellement def nañ couvre-feu terewul euh, malgré euh, si test yu ñu am euh, cas yi ñu ngi gën a gën a yokk chaque jour on est à neuf décès liés au Covid 19. waaw loolu moom li ma ci wax xam nga bu bu débat amee. Mhm. c'est pas une fin en soi que ñu wax ne d'accord naa wala d'accorduma mhm. mais li am solo mooy bu fekkee ne d'accordoo nga wax lan moo tax d'accordoo te danga ko junj sànq sa biir wax. Mhm. ñi nga xamante ne def nañ confinement muy muy France muy yeneen ndëkk yi. li yàlla dogal ñu am ko si ay nombre de décès dañuy wax ne boo demee États-Unis maanaam guerre Vietnam dafa faatu si ay nit sax maanaam ñi faatu si Covid bi moom moo moom moom mën a ëpp mm-hmm. tey nga dem France ñaata donc cas de décès nañuy wax xam nga fii dañuy wax ni neuf décès en en en mois mm-hmm. te am na mu ko mën dégg si benn mm-hmm. en deux mois démb mu ne benn décès sax ëpp na waaye nag dese moom décès nañ ko jàppee noonu mais da ngay euh, Italie am na ay jour deux mille quatre cent maanaam ay deux mille quatre cent deux mille cinq cent décès ngay digg par jour. Mm, par jour. Mm. par jour mm. nga xamante ni tey ñoom ba ñu demee ba am moins de deux mille décès maanaam de maanaam satisfaction résultat encourageant nañu wax. kon il faut ñu ñu jàpp ne ba am na ñuy France su amee ay deux deux cent décès par jour sax nee na bi mi ngi wàññi résultat encourageant ñu wax ne la courbe mi ñu wàcc. courbe bi mu ñu wàcc donc bu fekkee ni continuer na nii ñoom sax le onze maanaam ñi ñu tëjoon dañ leen di bàyyi ñu génn. Mhm. mais ça pas dire qu'ils à moins de vingt cinq mille morts. Mhm. ñun yegg nañ si peut-être mille cas de Covid. Mhm. bugguma euh, xëy na ñu jàpp ne euh, dañuy oyofal mbir di parce que dafa xaw a dafa xaw a situation bi dafa xaw a complexe. dafa complexe. mais dañoo nekk ci situation exceptionnelle. Mm-hmm. mais mënuñu nekk ci situation exceptionnelle ba pare ñu bëgg di raisonner comme bu fekkoon ne dañoo nekk ci situation normale. Mm-hmm. situation exceptionnelle bi dafa dugg Europe presque tëj ko xaw kar jaxase. Mm-hmm. te ñoom fekkoon na ñoom ñoo ñu gën a taxaw. fekkoon na ñoo ñu gën a dëgër économiquement ñoo ñu gën a structuré ñoo ñu gën a mën a appréhender. ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jiite. Hmm. bu dee seen système de sécurité sociale. ñu ci ay catastrophe mooy ni ma la wax ne balaa hmm. catastrophe bi di ñëw. Hmm. ku nekk ni mu toogee woon. noonu lay dundee catastrophe bi. mais dañu gis ne catastrophe bi entre entre guillemets en tout cas la pandémie amul benn li ñuy wax ne cosalité directe. nga xamante ne day nekk benn un plus un égale deux façon équation bu nekk nit ñi ngi koy def. pour mën a wut solution. mais terewul ne mbas bi moom li muy def mooy dafa attaque santé. dugg si biir santé nit ci attaque la mortalité. nga xamante ni nit yi ñu ngi faatu. donc lu ñuy bañ mooy nit ñi ñi nit yi di faatu ci façon bu jéggi dayoo. Mm. mais mesures yi ñuy jël toutes les mesures de de de de, de peut mise en quarantaine parce que boo xoolee ñi ñi jëkkoon jugee jugee euh, Chine dem France dañ leen mettoon en quarantaine si benn hôtel pendant quinze jours. Mm-hmm. ba ñu paree ñu génnee dem ñu feete médecin yi ñëw ñëpp way gars yi ñu libéré leen ñu dem léegi fan nañ mujjee tëj seen frontière waxuma sax jël ay nit def leen en quarantaine mm. kon ça veut dire que même ñi ñu doon surveiller terewul ni mbir mi dugg si na kon amul woon benn amul benn cosalité immédiate tubaab yi xamuñu ni mbir mi demee américains yi xamuñu ni mbir mi demee gis nañ ni nit yaa ñi faatu kon ni ñuy taxaw pour ñoom pour def ko mm. ma ne ni nit ci bañ a faatu faatu nag voilà budda moom mën na ñàkk laa di foog mu am mais nañu fexe ba bu dee dañoo jàpp ne mbas bi ni muy def jéggi na dayoo te ñoom munuñu koo bañ parce que ku mënoon bañ bañ ko. Mhm. comme munuñu si dara dañuy def dañuy nekk dans une stratégie de réduction des risques. Mhm. mooy risque de de de de contamination de nouveaux cas ak rythme de décès des cas des cas déjà contaminés suivant que mu mu mu nekk de cas graves ak de cas moins graves. Mm. ba pare yokku c'est-à-dire wàññi risque mu ñu muy dal wàññi risque mortalité bi parce que looy wàññi risque bi rek mooy mënoo koo bañ. Mm. et dañuy wax ne la la le risque n'est jamais nul en termes de probabilité xëy génn sa kër rek risque la. Mm. donc da ngay réduire yi. risque ak am accident mooy nga génn takk bu dee da ngay dawal oto nga takk sa ceinture. Hmm. topp code de la route. mooy tu xuloo mooy def li nga war a def yëpp. kon ñun si si jamono boobu nañu war a nekk mais def li nga war a def yëpp pour am benn résultat mais li nit ci di def pour am résultat mooy réduction mortalité réduire ñi muy wàll ak yokk guérison bi amuñu benn équation de causalité directe. même pour pour remède bi ñuy wax ne moom mooy faj microriquine y a un débat boo xamante ne si mm. biir France ci boppam des Français dañuy opposé wu à d'autres Français sur la pertinence de la chloroquine dans le traitement mm-hmm. kon loolu mooy causalité directe bi kenn amugu ko mm-hmm. làmbatu ak réduction de risque nañuy nekk donc avantage yi nekk ci chloroquine bi mooy ne utiliser ko mën na favoriser la guérison plus que bañ ko utiliser nga dem ci côté boobu tëj nit ñi ñu bañ a génn mën na favoriser wala réduire les risques ñuy walla ñeneen ñi puisque nun ko yaakaare mais ñi ngi tëj ñoom ñi ngi tëj français yi mm. italiens yi ñi ngi tëj nit ci di gën a faatu mm. en tout cas en terme de comparaison mm. plus que ñun te ñoom dem nañ ba ñi nga xam ne ñu ngi commencé ibbiwaat. waaw te ñu ngi tëj ne léegi dañuy commencé. non noo ñuy bi parce que tamit dafa am lenn loo xamante ne. nga dékku ko benn mooy mooy koo comme koor gi ñu nekk rek. Mm. maam suñu suñu xaritu mbàkk mbàkk yi mën nañ koo dékku benn fan ñaari fan ba fukki fan ak juróom-ñeent ñaar fukki fan ak juróom-ñeent. mooy vingt neuf jour mm. mais foofu gars yi dañu commencé xoo. da am na ñoo xamante ni gis ña nañ soxlawuñ sax ñuy gis. naan gis nañ nañ nañ dégg rek ne am na ku ko gis. <laughs> ñu ne fële guddi yi si ginnaaw nangam sàngam. ñu génne la ay théories yu kenn xamul. ne en tout cas benn jullit nee na gis na ko donc ils sont moins rigoureux parce que pour lan li ñuy dund ci moment boobu. Mm. mooy tax ñu bëgg jàll ci beneen situation. Mm. ñun tamit loolu daf ñuy dal ci wàllu ci wàllu analyse léegi boo xoolee ne. am na loo xam ne mën na ko dund 15 jours nga ne garaawul 3 semaines nga ne garaawul 2 1 mois nga ne garaawul mais boo ko naree dund 2 mois lépp te tu es obligé de changer de perspective de réflexion. Mm, xool leneen da nga wàññi génn gi jafe-jafe commencé am parce que tey. quoi qu'on dise dama ne jox nit benn saa li ñuy wax ci super priorité yi. Mhm. tey ñi nga xamante ne naka. parce que nee nañ bu confinement amee sénégalais ku leen di jox luñ lekk ak luñ naan. non loolu problème. loolu sax lenn la mais mais surtout. Mhm. surtout que comme première état bu ñu doon wax est-ce qu'on est sûr. que bu confinement amee résultat bi ñu bëgg dinañ ko am parce que fu mu ne nii tamit bu la dara dalee nga naan benn dose fajowoo nga naanaat ñaari dose si même mbir mi taxul nga wér mais boo si naanee ñetti fan nga jëm mën ngeen di sa bopp beneen jafe-jafe parce que fu mu ne nii dañoo wàññi génn gi ñu gis nañ nit ñi commencé sooxe ñenn ñi yaa di jox lu ñuy lekk mais boo ñu bëri liggéey yàqu taxaw ñu bëri seen liggéey taxaw donc léegi boo tëjee nit yi bu fekkoon ne da ngay tëj nit yi nga am garantie à cent pour cent parce que Europe tëjoon nañ nit yi ñu am garantie à cent pour cent que wér nañ avec une causalité directe scientifiquement démontrée kon nga ne kon naa naa tëj nit ñi quinze jours léegi comme ça lii Europe am maam ko. Mm. mais Europe tëj nañu ñaari weer. te ñaanoo tëj nañ ñaari weer te ñaanoo yàlla génn wàll li leen dal dal la te ñoo la ëpp moyen ñoo la ëpp pexe kon tamit dañu nekk ci benn situation boo xamante ne dafa laaj discernement mais surtout laaj courage courage yu lan courage yu décider. pour pour pour sa peuple li nga jàpp ne sa kéemtalaay kàttan ak sa aqulaay taalaa moom moo gën ngir sàmm tamit toutes les tous les équilibres mm-hmm. parce que jël jël ñaari saaku ceeb jox ko benn famille wala jox ko mm-hmm. ay famille mm-hmm. mais kooku bu fekkee ni li tax nga ko koy jox wàññeekuwul dafa yokk da nga ko war a joxaat weer bi ci topp bu fekkee da nga ñëw sama kër jox ma saako ceeb ak diwlin mhm. ne ma parce que génn gi daa wàññi ko te xam naa ne ñaa ngi si coono bu saafara amul si ñaareelu weer bi dama ko war a joxaat te ki ko munoon avocat bi ko munoon si misaal ma tooñ sama confrère ñi ko munoon si weer bu njëkk bi mhm. di fay ay salaire du du mën naam sax mhm. liggéey ñu di fay ay salaire di fay loyer di fay lépp nga def ko benn mois amoo amoo rentrée d'argent nga def ko deuxième mois amoo rentrée d'argent mais yow c'est boobu da ngay obligé changer sa rapport ak ñoom kon nit yi dañuy dugg ci catégorie bañ a nekk privilégié dans l'aide mën a dugg ci super privilégié mais fekk ñi nekkoon ba pare super privilégié mm-hmm. mais kon la viabilité de la politique de don alimentaire dañ ko war a xool en rapport ak mesures yu ñuy jël pour la gestion de la crise à moyen terme léegi une minute rek ci ci tranche sociale bi ndox ak courant bi euh, pour benn facture ndox ak courant yow loo ci xalaat bun ko defee tranche sociale li ñu fay dafa néew de arfan waaw waaye problème jafe jafe-jafe bi mooy. Mhm. parce que loolu xëy na dañoo mhm. def ay effort dans la mesure des moyens. Mhm. li fi ne. mais li tax ñu def ko bu fi jugul léegi naka nañuy def. dañ ciy yokk ñeneen. wala dañuy yokk tranche bi. du du la pertinance de, de, de des mesures jël man ni ma li ma gënoon a jàpp ne moom lañu war a def mooy tey te du sama xalaat rek ndax dañuy waxtaan ak nit itam di jàng ci ñoom li ñu waroon def mooy tey li nga xamante ne. man waxoon naa ko si biir waxtaan mooy ñu jël am lenn loo xamante ne. Mhm. daan presque. Mhm. dañuy wax ne nit kiy fay. Mhm. ak catégorie boo munti doon dul nag ki ko mën si tranche yi boo jëlee sa facture di nga am lenn loo xam ne di nga ko fay waaye boo demee ba si fayukaay dina am lenn loo xamante ne tey dinañ ko mën a dinañ la ko réduire. nga xamante ne tey ça te permettra nga régler benn problème mooy appréhender flux bi nga xamante ne moom la xaalis di dugal ci Senelec Mm-hmm. nit ki ngay dimbali ak ku mu munti doon tey su fekkee comme ni ñu wàññi woon loyer yi par tranche ñu ne kuy fay ba léegi ba léegi wàññi nañ la dix pour cent mais boo demee ba fee dina la defal facture mais dinañ wax ne wàññeeku na dix pour cent et ça permettra à l' su dee soxla na ko mu am un mécanisme de contrôle sur les sur les rentrées ñaata muy dugg Senelec par mois. li nga xamante ne moom moo ñëw en réduction des factures qui ont été payées nga subventionné ko Senelec directement tey boo jëlee dund bi. comme nit ñuy wax nga wàññi ko à la source parce que ñun dañu am benn problème. Mm. mooy amuñu un système formel pour appréhender ñi ñi mën a dimbali. c'est ça ñu laajte ay bi kii kii mais foog ñu laajte te mm. état jëflante ak ay population warul tegu ci laajte ci ay ay base de données yu leer ay statistiques yu wut loolu war a doon man maa ngi doon euh, wax tamit ba tey ci biir waxtaan ma ne bu fekkee ne dañuy wàññi mm-hmm. tey nañu wàññi bu nañu wàññi ceeb bi niñ ko doon jaaye parce que falaa budd bu lii jeexee nit yi fañ daan jënd ceeb nañuy dellu di jënd ceeb fa dañ ko doon jëndee avant et puis grande famille nga jox ko saaku ceeb peut-être benn weer lay durer après mu donc jëlal nga wàññi sur les agrégats nga wax ne à partir de telle période parce que xam nga war nga xam stock ceeb bi dugg hmm. à partir de telle période ceeb kat lii laa bëgg ñu koy jaaye nañ ci wàññi nangam léegi si grossiste yi ñoom képp ki nga xamante ne tey subir nga un préjudice. Mhm. si wàññi bi ñu wàññi ceeb bi état mën na la mën na la rembourser lool si kaw lan si kaw nga wane facture bi nga jëndee ak facture bi nga jaayee. bu fekkee ne à partir de telle période. Mhm. mën nga wane ni nga jot a jaay sur la base des factures état mën na la compenser loolu. Mhm. mais sa permettra nga xam tamit flux wu ñuy jaay tey boo wàññi woon certaines denrées si si si petit bi. nga nga responsabiliser. gis nga ne daal état dafa waroon wàññi denrée de première nécessité yi. pour pour deux pour deux choses. moom mooy bañ a am mm. xàjj seen si si ndimbal bi. Mm-hmm. parce que tamit mbas bi amul xàjj seen si ñi muy dal. ñi nga xamante ne ñoo doon fay nit yi da leen di dal nit yi doon feyeku. Mm-hmm. fa ñu doon liggéeyee tamit. da leen da leen di dal donc nga généraliser leen mais deuxièmement nga appréhender. sur sur des bases économiques au niveau des collectivité ñi nga xamante ne ñoo fa nekk ay opérateurs économiques soo woon tey suukar bi. ne ki nga xamante ne sur présentation de facture jaay na suukar bi à un na dem si mairie bi recensé wu foofu liñ ko fay remboursé ñu remboursé ko mais ëllëg si biir mairie bi dina xam ku fi nekk ku fi am boutique fan la nekk. Mhm. bu lii jeexee. dina tax ñoom bu lii jeexee bu fayul nga dem ñëw ne ko yow ñëwoon nga fi ñuy jox ay réduction te dinañ la laaj facture bi nga jëndee ñu profiter si tracer tout le circuit économique kuy jënd ñu ne la indil fac ñii ngay jaayee. Mhm. indil facture bu fekkee da nga jaay lu loolu ñu remboursé la. mais di nga ko appréhender léegi euh, temps bi jeex na maître Bocar Arfang Ndao ñu laaj la dernière question ci euh, dégg nga euh, sànq sax yaa ngi koy jund affaire chloroquine dina faj Covid 19 wala dina ko traité ainsi de suite dégg nga professeur Moussa Seydi nee na patient wala malade yi muy traité Covid chloroquine seen wér mooy gën a gaaw gis nga tamit ñu temps yi ñu ngi wax coowal artémisia suñu mbokk malgache yi ñoo ko génne lan mooy si sa xalaat. même bu fekkente ni amaguñ vraiment euh, vaccin wala loo xam ni carrément dafay faj feebar bi am na ay remèdes yu ñuy génnee à gauche à droite chloroquine artémisia lu si sa xalaat par rapport à ça. waaw dafa am leen lu ma leen waxoon sànq. Mhm. mooy na ñi ngi liggéey ci ñaari liggéey liggéey bi noonu ko jàppee ci ñaari pàcc la. Mhm. ñi nga xamante ne jàngoro bi dal maanaam ñi jàngoro bi dalul ñu liggéey ci ñoom. Mhm. pour. mu bañ leen a dal. Mm-hmm. mooy distanciation yi ñuy wax ak yu demee noonu. ñi nga xamante ne dal na leen ñu def suñu kéemtalaay kàttan pour ñu mën a wér euh, dañuy wax ne la proportion est preuve d'intelligence tey. pour bañ nit ci nit mu dal ni mu dalagul am nga jàpp nit yi tëj leen kaso du ko jar mm. kon loolu ce serait disproportionné mm. kon on a une certaine idée de la proportion sur les mesures à prendre mm. nañu essayer nañu jéem a à chaque fois ñuy ñu jéem a rester à a court terme parce que kenn xamul kañ la temps bi jeex na loo wax ci artémisia bi mooy benn ñi ngi ci beneen pàcc bi mooy ñi mu dal ñu seet lu leen di wéral ak dugal ko ci contexte ñu mu dalagul ñu seet ndax mën na nekk benn remède préventif mm-hmm. mais wax naa la sànq ñu ne ñu ngi ci benn crise boo xamante ni kenn amu ci benn causalité directe mm-hmm. chloroquine sax amuñu ci causalité directe dañuy làmbatu mm-hmm. mais booy làmbatu tamit da ngay jël benn échantillon échantillonnage am benn base de travail wax nit ci ne parce que li gën a indi jafe-jafe yi mooy kenn amul benn explication scientifique si ni ñuy dund. bu nit ñi mën a retrouver wu. bu kaay yokkee doo wax ne ndax test yi nañ yokk doo wax ndax lii la mm. doo wax ndax lii la y a pas un échange fructueux sur sur cette question dañuy ñëw rek mel ni ku la jox ay résultats examen mm-hmm. examen boo xam ne du jeex te waxuñu la mbat nga war a gën a travailler <laughs> waxuñu la français nga war a gën a travailler mm-hmm. jàll nga a jàlloo rek mm-hmm. wala amoo moyen nen lay wax mais dafa war a am une explication boo xamante ne tey lépp luñ ciy décider ñu nekkat gis nañ ci ni mbokk Madagascar yi indi nañ garab bi njort nañ ne war na mën a dimbali nit waaye nag gannaaw médecins yi d'accord gun ci mënuñu jël responsabilité di ko jox ay nit dinañ jël diir trois semaines pour xool ko bu fekkee ne am na ay volontaire ñu jéem si liggéey ak ñoom pour ñu tester ko ñoo xamante ne feebar bi dal na leen su fekkee ne loolu am nañ ci lu probant ak suñuy médecin dinañ seet nu ko mën a yaatale parce que fu mu ne nii kenn raisonné tout à court terme on raisonne à moyen terme ah, pour man moyen terme mooy fii ak six donc lépp lu mën a réduire mu wàll nit yi war nañ ko mën a essayer lépp lu mën a wéral tamit si si ñi mu dal war nañ ko mën a essayer mais en restant dans des proportions scientifiquement acceptables voilà maître euh, Bocar Arfang Ndao ñu bàyyi la nga tàggatoog auditeurs yi ak suñu mbokk intérieur notes yi ñu doon suivre ci live Facebook bi waaw xanaa benn rek li xëy na tàmbale jaaruñu foofu di ñaanal mm. nit ci kooru jàmm te mm. euh, bo ba ñu yeggee foofu rek mooy tamit ñuy fàttari nit ci ni tamit euh, mm, ah ñun euh, yàlla wërsëgalee na ñu doon mm-hmm. xeet wala pays boo xamante ne ñi fi mm-hmm. gëm yàlla mm-hmm. moo ëpp ñi ñi ñi ñi ko gëmul kon ñu delloo seen xel ci yàlla ci lépp lu ñuy def te ñaan ñaan yàlla tamit mi fi indi koor gi te ñu koy topp ci ci woor bi moom moom moo fi indi feebar bi maanaam ñu koy ñaan mu teggil ñu ko te ñi nga xamante mooy suñu njiit yi maanaam mu mu mu mu leeral leen hmm. ba ñu xam fu ñuy teg suñu tànk ba nga xamante ne bu fi mbas bi jógee it leneen lu ko gën a yées si ay coono euh, du fi am hmm. kon mu taxaw leen maanaam may leen lu ñuy wax clairvoyance maanaam askan bi tam ñu may leen ibbeeku xel ba ñu xamante ne ku si nekk fu ne nii bëggoo jàngoro bi dal la mbaa mu dal say mbokk hmm. kon nañu njort ne lépp lu ñuy digal ngir bañ jàngoro ji mu dal ku ñu nekk suñu jëmmi bopp la amaana nag am nañu joxe suñuy xalaat ngir tamit temps bi <laughs> <laughs> <laughs> bu baax a baax maître Bocar Alpha Ndao nekk avocat à la cour ah, en ñu ngi lay remercier bu baax a baax waxtu bee ñu xoj yi Léon Paul Mendy ci technique bi euh, émission bi ngeen mën koo dégluwaat ci suñu site internet www point rewmi point com www point rewmi point com Ndeye Comba Moreau di leen wax kon samedi prochain beneen émission beneen thème ak fois di remercier suñu invité maître Bocar Alpha Ndao nekk avocat à la cour jaa jëf